ginnaaw bi nu musloo ci seytaane bàkk sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentoom bu tedd bi muhammad ibnu abdullah yàlla na sunu boroom subhaanahu wa taala dolli yërmandeem ci moom moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon waa Cap Sénégal naataange ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi nga xam ni moo gën a sell gën a mat muy nuyoob lislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xanaa da jël nuyoo bi rek di ko jox képp koo xam ni macha allah yaa ngi toog di déglu rajo bu am solo bi nga xam ni mooy kap Sénégal naataange ñu lay nuyu te di la ziyaara te di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawféex di la ñaanal wér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 Ija'al كلامي راشدا wa وفكرتي wa وقلبي nawir wa yi sunu tomb waxtaan bi wees wan ñu ngi doon waktane Kijul liwar war ak ki nga ka day julli lan mooy wéral julleem kon tey mbokk yi dañuy dugg ci li nga faraidu salat. faraidu salaat nag suñ ko waxee moom mooy faratay julli mbokk yi ñu gën a góorgóorluwaat bu baax ci julli ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na innal mahda alladi baynana salaat fa man bi nee na li ñuy xàmmee ki nga xam ni gëm na yàlla ak ci gëmul yàlla yonent bi nee na moom mooy julli daal wax ni képp koo xam ni bàyyi nga julli rekk ab yéefar nga kon mbokk yi ñu bàyyi xel ci loolu te gën a fonkaat julli ba tey moom yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man jamaa bayna salaatayni bi xayri usrin faqad ata allahu baaban asiman min abwaabil kabairi yonent nee na képp koo xam ni boole nga ñaari julli te amoo benn ngant maanaam nit ki boole suba ak tisbaar wala tisbaar ak takkusaan wala takkusaan ak timis wala timis ak geewe te amoo benn ngant bu tax nga boole ñaari julli yooyu yonent bi nee na sun borom subhanahu wa taala tijjël ne la benn porte boo xam ni mooy bunt ba nga xam ni borom bakkaar yi mag yi fala ni jaare ëllëg kon mbokk yi ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax te gën a fonkaat julli mbokk yi kon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi nga xamni ñoo ñi doon top ci sun émission bi nga xamni moy émission diine ñu ci jàngale li nga xamni moy histoire yonnati bi alayhi salatu wa salam waye di ci jàngale ni nga xamni non la ni jamo sun borom subhanahu wa taala ñu ngi leen di nuyu wa te di leen ziyara di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxoy ki nga xamni moy Serigne Abdoulahi Fall bu ko defee mu joxal ñu ko waa Cap Sénégal naataange gépp ndeke noonu ñu ngi nuyu Serif Alwali waaye ndeke noonu tamit ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy soxna Nabu ndeke noonu noonu la ni siyaare soxna yi nekk ci biir panel bi ñépp ah di siyaare waa Cap Sénégal naataange ñëpp te di leen ñaanal tawfeex gudd fan ak wér mbokk kon yéene ci julli faratala la waaye takbiratul ihraami muy kàbbarub armal farata la wal qiyaamu ak taxawaay ba ngay taxaw ngir kàbbar kàbbaru armal farata waaye na mbokk yi bu dee ko xam ni daa feebar kooku mën naa toog julli waaye bu toogee julli tamit kàbbaru armal boobu farata lay nekk ci moom kon taxaway ba du ñew mbokk yi waye bu dee ko xamni dara ko rek kabaru armal bi mom bu koy def ala kulli halin dafa wara taxaw waya wërta tok ba ci tegu moy qiraatul fatiha jang bi ngay jang fatiha ci julli farata la kep ku julli te fatiha julli baaxul rakka boo ko def te tariwoo fatiha rakka booba tamit kenn du ko nangu ci li nga xam ni moom mooy julli ga ndax dangaa bàyyi farata wal qiyaamu laha ak taxawaay bi ngay taxaw pour jàng fatiha tamit farata la bu dee ki nga xam ni am na kartan mooy koo xam ni rek daa wér dara jëtu ko feebarul suy jàng fatihatul kitaab dafa war a taxaw kon taxawaay bi ngay taxaw pour jàng li nga xam ni fatihatul kitab farata la mbokk yi mbokk yi faraidu salaat sunu ko waxee muy faratay julli ba ca jëkk mooy anniyatu julli farata ba ca jëkk mooy anniyatu muy yéene bi ngay yéene pour julli mbokk yi yene nak am ño xamni dañ ni jërul nit ki buy julli mu koy tuddu ci aw lamagnam waye nako ko fas ci xolam am ñi ñoo xamantani ni yéene dañ koy fas ci xol waaye tudd ko ci làmmeñ waaye tamit dañ koy jëfe ci ay cër kon boo yene na nga ko wax ci saw làmmeñ waaye soo paree na nga jëf jëfi julli kon mbokk yi an niyatu moo jëkk ci li nga xam ni moom mooy faratay julli ba ca tegu nag mooy takbiratul ihrami muy kabarub armal mbokk yi kabarub armal farata la ci jullit ndax kabaru armal boobu akub taxawaayam farata la ana lan mooy kabaru armal moy yëkkati bi nga yëkkati sa ñaari loxo ba ci say mbagg nga wax allahu akbar commencé nag di julli loolu mooy kàbbarub armal mbokk yi farata la ci julli gi mbokk yi tamit wal julusul axiir mooy toogaay bu mujj bi ngay toog ngir sëlmal farata la toogaay bu mujj boobu ngay toog farata la Moy togay bi nga xamni bokul ak bo julle ñaari rakka di tok di taaya bokkuñu togay bu mujj bi nga xamni ni bu dee tisbaar julli nga ñenti rakka ba ca rakka bu mujj ba togay bobu ngay tok farata la bu timis bu julli nga ñetti rakka dernier rakka ba tok bobu ngay tok pour seulmal farata la julli gu man di nek dal togaay bu mujj boobu ngay toog farata la soo ko bàyyee julli ga yàqu na ba ca des wasalaamu sëlmal farata la soo jullee te sëlmaloo sa julli baaxul ndax lépp loo gis ci àdduna rek am na fu muy commencé waaye am na yam julli mu nga commencé ci takbiratul ihram waaye tamit moo nga paree ca la nga xam ni moom mooy kon dang naa sëlmal akub toogaayam farata la toogaay bi ngay toog pour sëlmal farata waaye sëlmal tamit mbokk yi faratala ñu bàyyi ci xel bu baax ku ko bàyyi ci julli rek sa julli yàqu na mbokk yi kon mbokk yi ñu xam ni jàng faatixatul kitaab akub taxawaayam farata la ci julli farata bi ci tegu mooy arrukoo lan moy ruko moy japp gi ngay japp li nga xamni moy say oom ci julli gi loolu dañ koy tudde farata ci julli gi soko baye julli gi yakuna wa rafu minhu ak yekati gu nga xamante ko yang koy yekati ku ci bi nga xamante ka japp nga say oom ba siggi loolu mbokk yi farata la ku ko bàyyi ci julli rekk sa julli yàqu na ba ci tegu tamit mooy as sujoodu mooy sujood boobu ngay def teg sa bakkan ci suuf teg sa jë ci suuf teg sa ñaari loxo ci suuf teg sa ñaari tànk ci suuf sujood boobu mbokk yi farata la ku ko bàyyi sa julli yàqu na wa raf'u minhu ay yëkkatiku bi nga xamni ni koy yëkkatiku bi nga sujote ba tok yëkkatiku bobu nga yëkkatiku mbok yi farata la ku ko bayyi sa julli yakuna mbok yi ba ca dess mbok yi moy tartibul faraidi manam nga toftale farata yi ginaaw bi nga kàbbaree kàbbaru armal nga jang fatiha ginnaaw bi nga jàngee fatiha nga rukkoo ginnaaw bi nga rukkoo nga yëkkatiku ginnaaw bi nga yëkkatikoo nga sujjóot ginnaaw bi nga sujjóotee nga yëkkatiku ci sujjóot bi loolu la ñuy tuddee tartibul faraidi mooy toftale farata loolu daal sunna la mbokk yi waxuñu la nga julli def biiratul ihram rek daal di rukkoo soo defee takbiratul ihram war ngaa jàng fatiha waaye soo jàngee fatiha war ngaa rukkoo waaye soo rukkooee war ngaa siggi waaye soo siggee mbokk yi war ngaa sujjóot kon ñu xam ni tartibul faraidi toftale li nga xam ni moom mooy farata ci julli gi loolu farata la mbokk yi saa boo ko bàyyee rek sa julli daal yàqu na mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax